salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu seetaan ci télévision Mbour TV ñu allons siwaat ak yéen ci émission deuxième saison émission d'ogu ak bi nga xamee chaque mois koor bu jotee émission d'ogu ak dafay ñëwaat ak yeen dugg ci célébrité xol euh nañuy ndogoo machallah way waxtaan ak ñom parce que amna ci ay célébrité yo xamanteni machallah ay lañ mais amna na xamanteni wet ni euh, leen rek moy baax pour ma leen fekk sen ay kër mais nag tey maa ngi leen nuyoo fi nga xamanteni rek moy madinatu salam machallah di gox bo xam ni euh, tey ku kenn du ko tudd te do tuddu ki nga xam ni Cheikh Béthio Euh, bu Mame Bambi Thiam bu bu Cheikh Saliou Mbacké ibn Khadim Rasoul waaye tey nag ma ñëw seet si koo xamante ni dafa bokk ci ñi nga xamante ni tey mën nañ leen lim tey ci wàllu cantakun euh, koo xam ne dafa marqué génération ci li muy def kooku mooy kan Buur Sine euh, di taalibe ak kan Cheikh Béthio ak ki nga xamante ni rek mooy soxna Aïda Saliou Diallo bi nga xam ne macha allah tey mënoo ko tudd te doo tudd ki nga xam ne mooy Buur Sine tey nag ma bett si ko fi nga xamante ne yu baax yi nga xamante jamono yi moo tege ci table bi bu ca xam naa léegi ni dañ ci wax parce que gis naa fi ay pom ak yu baax yooyu nga xamante ni loolu moom à part lay doon xam naa ne nag comme dama tàmm ni wax na nett li ci laa mi borom dàkkee dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo bu ko defee nag mu am lu ma ñaan parce que gis naa fi ay xeen ci ginnaaw yu baax yooyu nga xamante ni ñi ngi wane daal daal ñi ngi ci wéer wéer weeru koor boo seen di siyaar waa Mbour di siyaar waa Sénégal di siyaar waa réew mi ak biti réew di siyaar waa Mbour TV yéen ñi ñu seet siwaat di jël Elzo nga xam ne waa Mbour TV ku leen xam xam leen ak Bour Sine waaw ñu fekk see fii mom luñu neex la te it lu sedd suñu xol la kon ba tax kon ñu ngi en direct Mbour TV émission euh, ndogul ak waaw kon tey du yomb moom gaa yaa ngi fii te xam naa ni moom amul xalaat waaw lépp gi si biir waaw ñu ngi ñëpp di santaat bu baax bah, baax di bégaat ci nii ngeen ñu seet si waatee tey ji ci ci madinatu salaam di ñaanal soxna Aida sunu sak sunu ndam mu yàgg fi loolu tamit ak rakkam yu tedd yi soxna Batoor saliw soxna Adja saliw ak mboolem seen taalibe jërëjëf waaw. am na solo parce que tey booy seet euh, ndogu ak tey dama ko dekkalaat ci ci ci ci weeru koor ci ci xam nga daaw dama doon essayé rek daaw dama doon essayé parce que kër yi ma dem sax bariwul mais de toute façon euh, tey dama ñëw seet si uniquement tey parce que ren dama ko bëgg a yaatal quoi ren fu nekk laa bëgg a dugg. Madina Sam bi na <laughs> ñëw deux fois incha allah mais tey euh, Bour Sine ma fekk si la fii nga xam ne ni mooy Madinatu Salaam donc te xamal ci benn pàcc rek laa bëgg ñu waxtaanee ko mooy album album bi nga xamante ni presque moom nga génne présentement mu ngi cartonné te loolu laa bëgg tey ñu faram fàcce ko tey ci émission ndogu ak bi nga xamee ni euh, téléspectateur Mbour TV ñi ngi koy toog di ko alors tey album bi laa bëgg tey ñu décortiquer ko album bi xalaat bi nu mu fu mu ñëwee. waaw loolu dañ ciy sawar te dañ ciy santaat ndax album yombul ndax ku ne xam na ni album yombul Ga single sax da ngay nekk di ko dugal muy diir ay at mbaa muy muy métti métti boo xam waxuma laa nag album plus de six titres ak sept titres yoo xam ne da lay wóor ni moom ab liggéey la ab liggéey la te gëm-gëm la en même temps wax dëgg yàlla ñu ngi ciy santaat ndax na nit dina doon artiste doon woykat am talent di woy te amul ku ko jàppale te amul ba lim li ne ci moom amul fu mu ko exploité ndax amul arrière amul ginnaaw waaw bu ñu nag bu luñ Serigne Touba dimbalee ñu am gannaaw am ku nuy jàppale te Serigne Touba rekk tax loolu dañ ci santat sëriñ Béthio te ni ma la ko waxoon émission bi tey moom bi ñu yëgee ne da ngeen di ñëw dañ ko tuddee suñu jëwriñ ju baax muy jëwriñ le polyvalent maam Oumar Thioune waaw moom waxoon naa la ko sa télé ba moom moom émission bi ah noonu la demee barki sëñ Bamba moom moom émission bi waaw fii fii sunu kër la ndax euh, ki fi ne jarbaatu maam Oumar Thioune la muy soxna jëwriñ Aïda baaba waaw muy ku baax di ko xam ne gis ngeen lii fi ne moom moom kéemaan la waaye nañ nañ noppi rek barki sëriñ Saliou waaye sant nañ ci sant goo xam ne ni ñu teeru ak booba ak léegi ni ñu ko àndee mu doon lu rafet kër gi amuñu fi sens interdit muy man ak sama rak ak njabootam ñu fi ne barki sëriñ Béthio émission bi nag moom 100 pour cent Mame Omar Thioune moo ko moom jàmbaari soxna Aïda Saliou waaw di sëriñ Muniru Thioune waaw borom itali waaw mu ngi mu ngi Italie noonu la demee waaw album bi gars yi ñoo ko tëgg muy gars yi nekk sama ginnaaw ñu xam ne ay gor lañ ay jàmbaar lañ barki Serigne Saliou muy mbay jóob Bas mbay Serigne Saliou Fall wax dëgg yàlla ñu àndi ko àndin bu rafet te booba ak léegi taxawunu saa su ne ñu ngi répété ba instant ñu ngi ci projet yi waaw fi mu toll nii ñu ngi ci projet yi ñu ngi doxal lépp album daal si gàttal ñoo ñooñee lañ ko àndal waaye wax dëgg yàlla sa biir lépp sëriñ bi la ndax amuñu xam-xam. amuñu dara moom moo ñu dimbali bi ñuy jébbalu ci moom compteur vide lañ moo def si ñun xam-xam def si ñun ba nu mën a way Serigne Saliou Serigne Béthio soxna Aïda mii kon ba tax na dañuy jël lépp delloowaat ko ko te xam ne bu dul woon ak moom kat duñ am xam-xam si moom duñu mën a bind saa ci moom lépp moom la noonee la yu fi demee waaw noonu la demee. si bi ma dégloo album bi xam nga man lenn ma sonal man su album gee su gee album amee dama koy dégloo dégloo dégloo ba mu dem ba dafay soof suñu waa kër tellement man noonu laay man nee na bala may teg dara ci rajo wala télé naa ko liggéey bi war son bi am na solo macha leer na donc est ce que bi ngay def son boobu est ce que yéen saa amoo amoo amoo woon yenn problème af parce que son yi moom taarkaal la de loolu moom xam naa ni mënta ñàkk ngeen xam ne am nañ ci problème <laughs> dajale dajale ay nit maanaam kenn ku ne indi xam-xamam tëggkat bi répétition yi te répété bi yàggul gars yi ci biir ci biir studio bi am na si ñoo xam ne ci biir fi ñuy war a enregistré lañ xam ne lii lañ war a dugal xamuñu woon wooy wi barki Serigne Salim mu doon liggéey bu doy waar borom studio bi ndeysaan dañuy dóor tuuti baat bi am melo mu ne non ba suba bu ko defee boo nee ba suba du man sax du ma xalaat man mais ñu ne sama ginnaaw waaw nga xam ne amaana ñii ñi ngeeg seen soxna nangam nangam nga bëgg leen daggloowaat loolu ñëwaat studio day métti te duñ ci teg benn baat dañuy ñëw dóor album bi am na un mois barki Serigne Sall dem studio dama ko ñëw bagante bi liggéey bi waaye loolu rek lañ si jublu woon ngir bu génnee nit ñi mën koo déglu xam ne liggéey nañ ko te neex na am na solo am na xam-xam ba nit mën na si jariñu barki sëriñ Sall loolu rek moo ne woon jublu bi waaye métti na passé na ñu ngi ciy sant ndax boobu ak léegi ñu ngi ñuy wooyee fu ne ñii naan album bi laa bëgg ñii naan neex na te loolu rek moo nekkoon suñu jublu nit ñi xam message bi Serigne Bethio def ci soxna ayda ñu jàllale ko waa àddina mën koo xam loolu moo waral coono beeg yëpp waaye fay mu ngi nii lépp wàcc na si jàmm son yi ku ko déglu di nga xam ne ak cant la barki Sëñ Bamba noonee la yëfi demee. waaw noonu la album bi demee. am na solo macha allah parce que man déglu naa ci benn way boo xam ne dañ ciy way sama sang ba xam nga man lenn ma sonal man ko way sëñ Saliou doo nga ma sonal man ko way sëñ Saliou dama lay <laughs> nii laa lay def tellement dafa neex loolu macha allah man déglu naa ko dégluwaat ko ba sànq bi may ñëw rek ci yoon bi maa ngi koy déglu nga xamante ni liggéey bi rafet na te am na originalité man dama gëm li nga xam mooy originalité ci liggéey euh, donc xam naa dama tàmm ne wax nettali ci borom làkk dañ koy diiba rek ndànk-ndànk rek euh, sama ñaar yi nga xamante ni macha allah dama bëgg rek nga teral la gars yi nga xamante ni ñu ngi seetaan télévision Mbour TV ana lan nga leen di may ci ci ndogu ak tey loolu du yomb bu yeboo ñu ñubbi seen i xool te déglu ma tey <laughs> waaw barke sëñ Béthio sang santaat ko war na saat billaayi nde lépp mooma sëñ santaat ko war billaay nde lépp mooma sëñ ba ca yi mooma billaay njukkal ko war na ku xol sa démb xol sa tey nag billaay ak cantu war na la mu ba ngay ñëw jàmmeloo woon mu di la defar di la defal nag dina yaram dina yiir na soo goree santaat ko waruna xam sa bopp mooy bëggi xam-xam eso xam ne jaam nga dañu la goreel xam sa bopp mooy dëggi xam-xam xam ne jaam nga dañu la goreel te ki la goreel soo goree war a tooselaw ci ay mbiram nag ku yëg li moo la may jugal wone ko mbég maa ngi nii cant gaa ngi cant gi set sel xeeñ neex di jaayu maye say koppar teg ci di aalu elzo mam bu sa góos sëriñ Saliou droit yaay ak baay ñépp a ngi jaayu feccal yàlla moo neex sa waaje feccal yàlla moo neex sa waaje soo ko deful fii defi ko feneen sëñ te jaajëf jarama njoko njow coon allah barka e pentuleer sang be yanu may sant ay ca ba tey rek ñu way di ànd ak yéen seen émission ndogu ak tey ñu ngi ko defee fii ci Madinatu Salaam gis nga tey euh, buur fi génn ci Serigne ne <laughs> loolu moom defe naa ni <laughs> mënul ñàkk macha allah day dafa nekk loo xamante ni macha allah dafa am lu am solo la parce que tey album bi man benn bu ma ci déglu la dama ci jàng lu bari donc gis nañu ko liggéey album métti na euh, projet yi métti na donc pour l'instant donc album bi euh, yaa ngi waajal ay yenn spectacle gannaaw bu ñu nekkee ci Covid 19 ñuy souhaité waale sax ñi nga xamee ni actuellement ñoo ko amee yàlla teggi leen ko gaaw ndax Euh, vraiment feebar bi metti na lool surtout ci ñi nga xamante ni macha allah ay ay ay ay ay être humain lañu di ñaan yàlla rek feebar bi génn ci jàmm ndax ba mën na ñi ñëpp mën a delluwaat seen activité defe naa loolu na solo. loolu lu am solo la ndax nit moom wér la am waaw wér moom boo ko amee rek moo am nga lépp gudd fan ak wér yaram ñu ngi koy ñaan ci àdduna gépp mboolem seen ku am tawat bi ñu ngi ñaan yàlla saafara ko ci lu gaaw te mu jug ci àdduna bi ba kenn ku nekk mën a delluwaat sa activités yi nga nekkoon lépp di dox ñu ngi koy ñaanal ñëpp di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal yeneen réew yëpp jàmm sotti ko fa feebar bu jóge fi ci lu gaaw waaw ñu ngi ñu ngi waajal ñu ngi waajal ay ay caravane ñu ngi doon waajal lépp laata lii di wàcc waaye jàmm ak pexem yàlla ak dogalam waajal nañ ay caravane ndax album bi dañ koy topp album bi dañ koy topp ndax njariñ a si yoo xam ne ku ko déglu ci sunu yéene mooy ñëpp déglu ko suñu yéene mooy ñëpp xam li ñu bind ci sëriñ bi dañ ko topp ñu ngi waajal ay bés xam ne di mën a nekk sax concert boo xam ne ci salle lay nekk nga xam ne ba léegi boo sa sax ak euh, couvre-feu bi di nga ñu am en direct di ñu am waaw loolu tamit ñu ngi ciy dox te incha allah ci kanam tuuti dina gën a leer waaw ñu ngi waajal ay projet yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lépp ci biir album bi la ndax euh, ni ma la ko waxee woon sa nga Euh, Mamor mi ni mu si ni mu si jàppee dowut album bi rek ay projet ay projet loo xam ne mu ngi ci kanam te lu ñuy gën di dox di ci gën a teg sunu bët kon dañuy ñaan yàlla yàlla def fi wér ak mucc ak naataange ba kenn ku nekk delluwaat sa activité boobaa dugglante bi ak demlante bi dina gën a yomb kon sunu projet ak lu ñu bëgg day gën a mën a yomb kon loolu rek la ñuy ñaan yàlla yàlla wàcc ko ak jàmm ak salaam waaw noonu noonu daal la yëfi demee ak li ñuy waajal noonu la demee. naa ni ak retour bu yàlla defee bu yàlla defee euh, ñu génn ci Covid 19 bi nga xamante ni macha allah tey tax na jamono ji bi ñëpp a jombi ci Covid 19 bi ñun ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla lafal cat ba lii génn gaaw Sénégal ba ñu mën a delluwaat suñu saako ndax gën ñoo génn. ndax 8 <laughs> heures ba 6 heures du matin kuñ ko tëj métti na mais nag c'est normal quand même c'est normal euh, parce que ku def loolu rek day tax dafa bëgg rek nga euh, nga daal di wér am wér gu yaram donc Bour Sine fi may ñëw mooy dafa am ñoo xamante ne dañ la bëgg ndeysaan Euh, man bi ma ba ma li ba ma gisee pochette bi ñi jàpp ci album bi bari na euh, ñi nga xam encouragement bi donc loolu comment ça fait boo gisee ay nit euh, di di taxaw di pour rien que pour Bour Sine jëm ca kanam. waaw loolu <laughs> loolu moom dogal yàlla la ndax bëgg dafa doy waar nit xam nit xamut boppam te nit daa war a xam boppam ci bu bëggee jaamu yàlla xam sa bopp mooy mu wóor la ne yow fukk ngi toog. ñoo xam ne sa defet lañu xaar wala dara am juróomi nit ñoo xam ne dañoo taxaw bëgg la te yàlla rek tax loolu jar naa rey sa bopp maanaam ñun dañu am problème boo xam ne doo xamoon doo xam noo war a def ndax daa am ñoo xam ne dañoo taxaw yow sa yow yow rek la ñuy bëggee dañ jaral nga leen lu ne nit dina toog ne buur si nàngam mu jaral leen lu ne léegi sa problème mooy yow nooy def ba mën a xam ba ba mën a ba mën a dem si ñoom kenn ku si nekk wala nga xam seen tur kenn ku si nekk ndax barki Serigne Saliou ñi la xam fu man ñi ma xam man la ñuy taxaw di ma bëggee ni nga ko waxee kenn xamut nu mu toll mais suñu problème mooy ndeysaan keroog daa am lu ma leen benn mbir mu doy waar damaa dem euh, benn kër bokku taalibe Adañas ndeysaan maa ngi koy charré bi ñu fa demee euh, ba toog maak sama waaj ñoo àndoon Ablaye bi nu àndee may may defar lu njël mooy njël yi ñuy takk waaw bi ñu koy defar ba génn mu ne ma yow de soxna jëwriñ Jeynaba la mu ma maa share koy siyaare le passage di le bege jëwrin mang lay siyaar bu baakha baax ma yow de mën nga woy lol dag ma maa neex lool waaye problème bi moy bo ma rombe do mu nuyu wax joji japp ma nak barki Serigne Sali wax ji ndaysan affaire bi tuusi ma tuusi bo xamne ma xamne mang koy romb duma ko nuyu wala peut-être sax mën na ko sa baye xel te mom mu ngi may baye xel di ma ci la ne ko tuubal na la te fuma la yow dina may ba sa keur di fa baagante ba nga xam ne li ma def loolu la li ma lay romb nuyu ma la réccu naa ko barki sëriñ Saliou ngir saa saa di nga romb nit nuyoo ko wala sa xel sax du si ne mu jàpp ne da nga koo yëgut te man nitu nit ñi laa ñëpp laa war a yëg fépp laa war a dem maa ngi nuyu ñëpp di saare ñëpp di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak barki sëriñ Saliou te di leen wax ni suñu sañoon dañuy dugg kër gu nekk chaque jour ñu ñëw seen kër nuyoonte kaf ree ndax dañoo bokk sëriñ Tuubaa dañuy way te lii ñuy way pour jaam la ndax xëy ñoo xëy dooni woykat yàlla moo dogal si ñun def si ñun baat def si ñun xam-xam pour ñu mën a yee waa àddina kon nañ leen a war a tamit delluwaat leen njukkal dem si ñoom wàccewaat suñu bopp si ñoom man noonu laay doxee man ku ma gis dama leef comme sama bopp ndax euh, ndaxte ay nit lañ ay jaam lañ dañoo war a roofoo jaxasoo ànd te yàlla rek tax barki Serigne Saliou waaye lu am solo nga ma laaj loo xam ne dama si lancer message ñëpp barki Serigne Saliou man fu ma si duma la laaj paas du ma la laaj dara damay def te Serigne Touba tax ndax jaam laa Serigne Touba laay liggéeyal barki Serigne tubaa muy daara lu mu mën a doon dama siy bi ngir rek fësal sama lot ngir wan ne man ak yow ñoo yam Serigne bi rek am barki Serigne Saliou noonu la demee mais sa laaj bu bég naa ci loolu moom faaw mu jàll. non xam nga xam nga man li tax ma laaj la loolu ñun dañ ciy tombé ñun animateurs yenn saa yi dañ ciy tombé yenn saa yi nit da gis bëgg la mu gis la ci rajo wala mu gis la ci télé doo xam. mais mi ngi toog këram di la bëggee tey euh, boo ko rombee nga sous-estimé ko wala nga doo ko nuyu lool day nekk loo xamante ni peut-être danaan non kii kii kii yëguma fekk ndeysaan euh, kéemaan la donc moo tax ma pëtaxlu rek la <laughs> laaj la question boobu nga xamante ni saa xam naa ci artistes yi loolu presque lay ëppee donc donc damay lancer message artistes yi nga xamante ni peut être ñi nga xamante ni ñoo leen di bëggee nañ dem joxe leen delloo leen li ñu moom ndax kii xamante ni bu album génnee moo koy jëkk jënd soirée bu amee moo fay jiitu kon ñooñ njukkal leen jar na ko kon defe naa ni loolu tam da ciy am solo waaye buur man yu bax yi ma gis nii de fo ñu gis fo ñu fo ñu jibi fo ñu décortiquer yu mel nii ah ah may waxtaan mais ben <laughs> benn bay bàyyi bi benn reetaan bu ndaw ci suuf xamna xamna ni mom bay jibi saaliw la mom mo ree ba sew ci suuf ndax donga tarbiya la moom day bëgg xéet yi waaw xéet yi day san sunu jëwriñ ju bax ji mam war ciun waaw yónnee koppar yu takku waaw ñu waaj ko ak ni jamono ji démé barki serigne saaliw ndax man dama la wax sank rek gis nga kenn ku la yëg bëgg la te serigne touba tax billahi wallahi moo gën moo gën àddina ak li ci biir ndax fukk nga toog yoo xam ne bëgguñu nga dem waaye nit yéene la ngir serigne touba rek yow yow maanaam boo amee dara yow man lu ma am ci sama way sama si man la jëm bu dee koppar maa koy jariñu tey du ko jariñu waaye kii def loolu ngir yow ngir sa avancement mais tamit nañu nañu nañu xalaat tuuti barki serigne saliw maa ngi ñaan ci serigne touba ay xéewalam yokk ak ko yéene waaw muy muy ku baax xéewal yi jëwrin Aida Ba nga xam ne mooy xalaat yi moom yu lu ngeen fi ñam lu neex rek lu ngeen lu neex rek mais xam nga ni yii waaw mais waaw yi xeeti pom mais tàndarma ji moom moom moom fañ ko bittee moom kéemaan la xeeti band yi nga xam ne mais mais mais lii daa war a daa wër wër àdduna jubluwuñ si lu dul sant Serigne Saliou barki sëriñ Saliou waaw ndax ñun sunu lépp ak cant la te yii xeet ngir rek bég tey bégle waaw ndax bëggoon nañ mu ëpp nii mu gën a yaatu nii waaye ak jamono ji nga xamante ni moom kiimaan la waaye ñun ñu ngi sant Serigne Saliou barki sëriñ Béthio ay taalibe soxna ay dalañ dëgg dëgg jëmmi Serigne Béthio Serigne Béthio boole ak moom ñuy ànd ak moom liggéey bii mu ñuy yee ci sëriñ bi nga xam ne. boobu ak léegi mu ngi teg ci aw yoon te ni ma la ko waxee maam Omar lépp lu mu lay defal jëmmi soxna Aida tax mu koy def barki sëriñ Béthio jëmmi soxna Aida moo tax mu koy def waaw ba tax na ñu ànd kook ñi nga xam ne boobu ak léegi ñu ngi si Fatou géy Fatou ma nga xamante ni barki sëriñ Saliou moom xam naa yi boo ko ñamee ñam yi ñam yi damay xalaat jibi Saliou mu daal di bàyyi caméra bi fële waaye kéemaan la waaw. en tout gis nga euh, leen naa la xawal <laughs> man may parce que li ma gis table bi rëy na de <laughs> kon nag yéen ñi nga xamante ni yéen seetaan ah li mooy ndogu ak ndogu ak di ñoo toog artiste waxtaan ak moom mais du ci biir émission bi nag ah, def suñu yu baax rek parce que weer koor bi moo tax ñu def noonu parce que tax day baax ñu dem nemmeeku ndaanaan li nga xam ne ni euh, yenn saa weer weeru koor ci la am jot am yoo xamante ni du ñu am jot occasion weer koor la ñu am temps ci nga mën a pëtaxlu dem seeti ko ko ci mel ni compagnie Bour Sine gii ku seeti da koy woo téléphone laaj ko fu mu ne mais woo dama jékki-jékki rek mën a damay ñëw bett ko parce que tay dem dafa nek lo xamanteni tamit euh, mi ngi bay waram ci limu nek muy walu way euh, li gëna neex moy ngay tag ko xamanteni ko jar tag mu Cheikh Béthio euh, Cheikh Béthio bu mam bambi Thiam ñukay ñaanal rek yalla téré ko ci aljana yu gën a ndax mom tamit manké nañu barki de moo 17 avril gis nga ko xel yépp fi la fi la nek madinatu salam ah xalaat so ki nga xam moy soxna Aida sha allah di ñaan yalla rek yalla gën ko taxaw ndax jigen ju mën gor la sha allah ko jappalé borom kërëm la non la démé soxna Aida ni nga ko lérlé 17 avril moom day sunu bés day bés boo xam ne moom saa su teroo àddina ñi ne ci àddina ak ñi newut sax fii seen xel na dem ci sëñ Béthio ndax daje bi de li mu defar ci àddina daa bëri lool ndax ay ndaw xamante ni bu ñu woon ak sëñ Béthio du ñu foon ñeex sëriñ tubaa ñenn ñi juddoo wuñ ci ak murit ñenn ñi juddoo wuñ ci ak jullit ñenn ñi ay murit leen waaye amuñu woon xam-xam gi ñuy doxee suñu digg ak sëñ Tuubaa bu buñ ko xamee mbaa ñu doxe ko mbaa nu bëgg ko grâce à Serigne Béthio te li ko waral mooy le 17 avril 1946 ci saayir ndax ñoom fa ñu àndee du fii waaye bis boobu te ba léegi mbig moom ci lañu ne ndax ñu ci mois avril yii ci xeetu ci xeet yi la dañ koy gunge barke Serigne Béthio ba tax na ndeysaan ci xam ne bu yàggul ci la premier ci weeru koor gi ci la def secret bi mu doon bis boo xam ne waaw ñun moom ñun ay cantaakoon lañ ñun tey la ñu gën a yëg ni sëñ Béthio ci ñun ndax laataa lépp la ne soxna Ayda yaay man maa yow su ma nee war yow la ñuy gis kon sëñ Béthio réerut réeralunu barki sëriñ Béthio wóor nañu ne tey ji la ñuy gën a dimbali li ñuy yëg ci moom tey lañ ko gën a yëg cofeel gii ñu am ci moom tey lañ ko gën a am te topp gi ñu koy topp barki sëriñ Béthio tey la gën a fës àddina soxna Ayda mi ñaanal barki sëñ jigéen gu mën góor la du sax kenn xamut lu mu doon barke Sëriñ Bàcc daaw gis ngeen euh, li yàllay def bi ñu demee xam Mbour TV ñëw aussi daal di euh, couvrir li nga xam ne ni euh, mooy di seet abi bi mu ñëwee seet ko mu recevoir ñu macha allah jox ñu teranga yu bari nga xamante ni macha allah dafa yàgg ci teranga macha allah moom soxna Aïda Diallo nan ko fu mu fu mu taxaw rek fu mu toll rek naan wax den nay wax amin ndax ku baax la ku borom xolu yaatu la te macha allah njaboot Cheikh Bàcc yëpp gërëm nañ ko Mbour Sène xam naa ne dañuy def nii ñu ni gis xool table bii waaw tubaarkàlla bu jibi euh, xam naa dañuy xool table bi xool yu baax yi ci ne bu ko defee euh, deuxième parti bi nag ñu ñoo xumbal fii ba mu xumb parce que dañoo annoncé rek dañoo annoncé daal ni ñu ngi ci biir émission euh, ndogu ak waa kay léegi di <laughs> jibi xam nga dañuy pause <laughs> dañuy pause ñu xool ko aji wërsin dañuy jóg taxaw dañuy jóg taxaw voilà dañuy jóg taxaw nga nga commentéral ma li ne ci table bi waaw lii moom xam naa ni ñii dañoo ko décoré sa door am di jàmm dañu la doon reetaan la doon reetaan yow xalaatal sa door jébbalu ci moom jébbalu ci moom say xarit xamul sax doon la bundu ndaxte yoon wi nga nekk doon ci ñoom kéem taay am si ñoom ñu gën leen sax seeni maaka am na si ñoom ñu gën leen sax seeni maaka seytaane solu ñëw ci ñoom dina taal di leen nawtaal del sa doom ji xa baax del sa mbokk taalibe yi ak di bégaat bu baax ci teraanga yii nga xam ni day teraangay 17 avril di ci sattant sëñ Béthio bu wër waaw di ñaanal ay da Saliou mu yag fi lol ta and ak wër mboolem seen rakami tedd yi nga xam nga ni teranga yi mom fi rek la mëna xewé xewee waaw teranga teraanga ku ne tek nga ci sa bëtt waaw fi rek lay xewé waaw fi mom mom dara ji la waaw mbokk talibé yaa ngi ni ñepp ngi bëgg waaw di nuyu jëwriñ la polyvalent mam Omar tion mu soxna ñu ngi koy wat ndax teranga yépp moma waaw ñu ngi koy wat bu wër ndax li da yombut fi réew mi tollu ni xeeti teranga yi moom da yombut jëriñ polyvalent ñu ngi lay siaré bu baax waaw moom soxna da Saliou ñu leen di bëggee di ko ñaanalat ay xéewalam gën a yokk waaw ndax xam nga ni lii lii daa rafet waaw lii moom lii moom gaay lii waaw lii moom jibi moom lii moom kéemaan la moom moom fii mu ne bu mënoon a pause dina pause waaye sant nañ bu baax barke Serigne Béthio lépp rek jublu si bëgg tey bëggle ndax liiru dara waaye day màndargaal yéene ju ñu am ak fii fi toll barke Serigne Bamba suñu yéene ëppoon na fii waaye wàññi boo gis ci benn lay tàmbalee te ak njël benn dafa sew lii ni mu demee waaw ndax ndogu bu ndogu bu simple la rek waaye ñu ngi waaj loo xam ne. ñun ak mbouti bi ñokay andé barki serigne saliw lolu mom ma ngi wah koy ma ngi la koy wax lo xamné dootu ñu leen bayyi mukk li serigne beccio da wax ku ko timbax ñu rimbax lako ah ñu rimbaxante ko barki serigne saliw ay ci mu ngi nonu mbur say sa sa gato baxna ah mais wa lolu rek lañ ci jubul won bëgg gaay bekk gaay contane ñu ñam gato bi ñam la ci biir lima la wax non sepp la la ko bënd nga ci biir mom non rek la démé maa ngi ciy woo ñëpp woo naa si ñëpp nag waaw na ñëpp ñëw ñu ndogu ànd koog waa Mbour TV waaw di bëggaat di sant di jublu rek sant sëriñ bi ñaanal soxna Aida mu yàgg fi te wér di ko wax ne sant nañ barki sëriñ Béthio bëgg nañu lépp baax na waaw noonee demee. dafa man tey bala may tëj sax émission parce que dama tàmm ci ndogu ak euh, day baax yenn saa yi itam ñu jox ñoo xamante ni peut euh, mën nañ wax ci kiñ seet parce man rubrique ba moo ma dàqal lépp. seet si koo xamante ni ah, ay mbokkam ay xaritam dañuy def témoignage ci moom ki may ki may ba kenn sama wet nag kii moom macha allah mënoo ko wax te doo wax Bour Sine ndax ah, foo leen gis-gis nga ko muy ah, ki nga xamante ne rek mooy laay Abdoulaye macha allah di ko yàlla baaxal tamit tax jàppale Bour Sine ci carrière bi nga xamante ci la nekk laay ma bàyyi la ak téléspectateurs yi nga sànni ci ñaari kàddu rek bala ñuy tëb la ñuy tëj loolu moom dijjee loolu damay neex ndax ñun du àndewuñ lu dul ak taalibe ñun ak talibé rek lañuy andé ñun lu talibé nekkut ñun lolé duñ ci dugg ndax seigne bëccio dañoo dimbali muy melni comme 17 avril bi bi ñu rombu bi passé luñ am buñ foonoy ñeex ci seigne tuwa mom dañ ñonko amé ci 17 avril bi koné kuñ mëna andal ñuy and ci talibé lepp di rafet lepp di rafet ñun and bi ñi and ñun dañoo rafetal lepp ndax lepp dañ ko teunk ci talibé waaw kon taalibe googu sëñ Béthio nampatal ñu ci jàngal ñu ni ñuy doxee jàngal ñu ni ñuy waxee jàngal ñu lépp ba ci suñuy mbiri bopp lu mën a xew dinañ xam ne ñun luñ ciy mën a doxee loolee nañu ànd ak jëwrin Boursine te muy sama jëwrin may dox ci daaraam waaw kon kookee danoo ànd fépp te fu ñuy dem foo ko gisee di ma gis waaw suñuy jikko maanaam mën nañu ñaari jëmm lenn lañ waaw ñun ñaar ñun ñoo yemi jikko te ka ngaa yemali jikko manam ngeen bokk pas-pas kookee nga mëna andal mais mom de jëm ju bax la ay tout tank man tout tank yu gëna xébu man nañ ko tarrel man nañ ko yendlo ben ben place ah, kon kon amuñu lu dul maanaam di ñaanal di waaw ginaaw bi lay buñ santee soxna Aida Saliou di ko ñaanat mu yagg fi lool mbooleem seen jëwrinam yi nga xamni mom la jëwrin la yor kon and guñ and ak mom dañuy wala wala xel ni dah jëwrin ndax moy sunu jëwrin waaw kon dañ koy ñaanal li nga xamni moy mbubum artiste mi nga xamni seigne sëñ taw moko moko ci dimbali katanal ko ci mo di ka kennal di kennal soxna ay da salew mi nga xamni mom lañu seigne taw bolel kon dañ ci santat bu baax a baax noné ñu and ak mom nek ci daara ji di dox tay lo lepp te lepp ñu ñaan bi doll ñongal sunu talibé ba kenn duñ jéppi lolé dal lañ koy ñaanal di ka ñaanal mbooleem seen képp ko xamni yank kay yene dañ ñaanalaat soxna Aida Saliou Thioune mu yàgg fi lool te bëgg naa bu baax waaw jëriñ am na solo macha <laughs> na solo waaye tamit soxna itam foo ma jox ci kenn soxna Aida Saliou Thioune sunu ndam sunu sag sunu xéewal sunu fi yàgg lool te wér ànd ko rakkami tedd amiram yi soxna Adja Saliou sunu santaat bu baax si teew yii bu sin teew fii waaw ñu bu baax sëriñ bi waaw bëgg nañ loolu jëriñ waaw lii moom moo fa jaar waaw ak sunu maam ju baax jooj jëriñ maam Omar Thioune jo polyvalence sana Aïda Sary Thioune waaw ñu ngi koy ñaanal xéwalam gën a yokk waaw ngi santaat bu baax jëriñ jaajëf waaw moom moom ndeysaan waaw loolu moom dinaa ci sawar lool waaw ndaxte ndeysaan waaw waaw moom moom day borom baax bàkki Serigne Touba moom moom ñun moom fu nu toll dañ koy bëggee waaw ndax waaye mi daan neex lool waaw moom moom waaye moom waaw ñun moom la def su mooy sunu sonari waaw du sunu lépp bàkki Serigne Touba muy euh, naan soxna Aida Saliou sunu ndam sunu sak waaw boobu moom daf noo neex bàkki Serigne Touba waaw moom moom waaw mention très bien daal waaw bég nañ moom <laughs> nag kii li mu def sànq kéemaan la xam nga moo yëngal ñu bari am na am na jëwriñ ju ne si biir joo xam ne <laughs> am na jëwriñ joo xam ne dañ ko woo nanguwut a ñëw mooy jëwriñ Aïda Baba waaye woy boobu moom keroog maa woo téléphone ne ma woy woowu moom mooy sama woy ci album bi barki Serigne Saliou te mooy woy ñëpp waa ndax kat Soxna Aïda mooy sunu sakk mooy sunu ndam te mooy sunu yaakaar ndax suñ béccoo lan yaakaar àddina ak alaxira mu ne ak moom jël lépp jox ko. kon kat mooy sunu ndam mooy sunu mooy sunu sak mooy sunu lépp te boobu faaw mooy faaw ma faaw ma faaw ma yëngal ko ñu xam ne kat moom noonu la demee waaye bëgg naa ci nii ñu àndee ñuy samay rak waaye ñu doon ay mbokku taalibe ñun fii amul mag amul rak ñun ñëpp ay mbokku taalibe lañ ñun ñëpp ñoo yem ci sëriñ bi barki sëriñ Saali ba tax na lépp mat na laay li mu wax rek du mu wax ñoo yam jor may wax barki sëriñ Saaliw di bégaat jëwrin fi ñu fii ñu ne barki sëñ Béthio sama xol sedd na ci waa kër gi te maa ngi ñaan Serigne Touba seral seen xol booy waa ngi yoon waa ngi nii mbirum yàlla deseet desal te du xeet doo ma kimaar sa sanam la yorul fu ko neex feeñ ma xibaar loon sunu ndam sunu saak mbirum yàlla deseet desal te du xeet doo ma kimaar sa sanam la yorul fu ko neex feeñ ma xibaar leen sunu ndam sunu saa biiraasu man baarasani kulal ko moom sangam ba cuun ngay bëreelo sunu ndam sunu coow li ci bindub teen bi sëñ be toolo jox baab cuun sunu bagan yaa ngi sunu ndam sunu saak elso mënu nu nu tiital ba dun la gëm sëñ be tooleeral li nga doon yaa di jëmam waaw sunu ndam sunu saak te du doomu yeew rek a xamum lëm ak ma yaram cuub ñi gëlëm waaw sunu ndam sunu saak sunu yaakaar sëñ Béthio feeñal lu Mustafa bilaay sëñ Béthio amul benn ndandoo waaw waaw sëñ Béthio sëñ Béthio feeñal lu Moustapha bilaay sëñ Béthio amul benn dandoo. ni ma ko ni ma ko njëkkee woon noonu laa kaddu yëpp dañ koy joolaat soxna Aida Saliou jëmmi sëriñ Béthio ñaan mu yàgg fi waaw di ñaanal soxna Aida mu yàgg bu fi yàggee rek lépp neex. na fi yàgg lool na fi yàgg loolu loole jërëñaan soxna Aida yàlla na fi yàgg loole jërëñaan bu fi yagge lepp bax barki Serigne sall ndax ñu ngi yëg Serigne beccu ñu ngi dund Serigne beccu te suñu dund gi kat dañ ko jeexal ci liggéey Serigne Touba te ñu ci yoon wo ñuy jaar bu liggéey Serigne Touba barki Serigne di santaat sama bokku talibé yi mbay nga xamné moy wa Pastef Events Pastef Events Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni jëwriñ ji bi fay Pastef ñu ngi koy char le passage ak sama kat yi basirou jax sama rak moom si kër gi la dëkk ak Mbaye Diop waaw ak Mbaye Jaxaaw nga xam ne moom moo ko defar mbay moo décor lii sant Cheikh Béthio mu ndaw Dieng moom mu ci kurti kurti damaa dem ba yërëm ko ndeysaan kéemaan la sant nañ bu baax waaw bëgg nañ barki Serigne Saliou lépp mat na sama dëkkandoo yi fi mu laa gars yi Serigne Saliou lépp baax na Euh, defoon ko premier numéro euh, muy seen émission ndogu ak di émission bi nga xamante ne mooy wéttali euh, téléspectateurs yi bu ñu dogoo ba pare ñu jàpp seen télé rek xaar ndogu ak ñëw wane artiste bi naka lañ koy bertee ak naka la ñuy ak moom ba daal di sànq li nga xam ne mooy waxtaan mais léegi nag suñu émission dañ koy indi fi Salaam nga xamante ne macha tey mënoo fee génn te doo tudd Cheikh Mbethio tudd ki nga xam ne mooy Soxna Aida fekk si fi ki nga ni mooy jëwriñu Buur Sine bi nga <laughs> bok ci Mbour TV sha allah te vraiment mi ngi def liguey bu am solo manam ci carrière bi diko ñaan tam yalla gën ko taxaw ci li nga xamanteni ci la nek remercier ñi wa kër gi yépp gis nañu taxaway bi gis nañu liguey bi gis nañ tamit accueil bi té rek da am solo sha allah ah, laay ma ngi lay bëggé waat bu baax ma sha allah yow mom dama nek sax di wax daan yow dama lay ñaanal yalla sa jàmm ma sha allah parce que gis na taxaway bi ak engagement bi ah, sha allah xalé yi tamit sha allah gis nañu teranga ji yépp gis ngeen ni ci sonne engagement bi sha allah ñom tamit kenn du ñom ak ah, yeneen gaay yi ngi leen di contane baax ak sama gaay yi nga ñoo ne ci ginnaaw di mbalax mbalax mu neex mi maa ngi leen di kontaane baax macha allah téléspectateurs yi di remercier euh, ki nga xam mooy Jibi Saliou moo nekkoon tey ci ci caméra bi macha allah mooy sama mooy sama directeur te moom laa àndal macha allah ah, moom tamit mooy taaral yëf yi moom tamit maa remercier ci ci bi jaajëf képp koo xam ne nga toog du seetaan rendez-vous allah dans deux jours ci benn émission numéro euh, ndogu ak ci télévision Mbour TV jërë ngeen da saalu yaanu moom dëkki dëkki sëñ bee conge ñu ngi ñaan cun nga yàgg fee daaru salaam daaru salaam